musa toj bi Moussa <coughs> ak a mën a toj c'est <laughs> bel toj saa <laughs> kii il faut que ñu ubbil ko centre boo xam fa lay jàngalee tooñ ah, yow Moussa Fall mën nga toj de mais sa yi est-ce que ci bor wala nga ciy leble bor <laughs> Moussa Fall toj il faut ñu ubbil ko centre bu ñu jàngalee tóoj centre bu ñu jàngalee tóoj kel tóoj non Moussa Moussa yaa mën a tóoj billaahi mais tóoj bi damaa demee ne da nga dang da dang ciy da bor wala nga ciy fay fay bor <laughs> yaa mën a Moussa borom tóoj